Euh, salaamaaleykum ma cher internet univers info tv di leen bëggee bu baax a baax di leen jox seen wàccuwaay waaye di leen ziyaar comme ni ñu amee habitude di ko def euh, di dox ci yéen lépp loo xam ne rek day romb ci actualité ba tax nañu seet si koo xam nekkatul ku ñuy présenté biir univers info tv muy Zo Baldé bu Mame Ndiaye Savon ngir daal di waxtaane lépp lu sow biis daal di xewal instant bi rek rawatina actualité euh, dama koy bàyyi mu nuyoo bu ko defee ñu daal jëm ci li nga xam ne moo di waxtaan bi Zo Baldé noo def salaamaaleykum maa ngi leen di nuyu bu baax di leen leen bëggee di leen jox seen wàccuwaay di nuyu sama jigéen bi nga xamante ne nag kenn du yow ci man nee naa la di la bëggee di la ziar di ziar sama frérot bi nga xamante ne moom nag moom. Mhm. kenn du moom ci man aussi tamit kon maa ngi leen di nuyu bu baax baax di leen fay di nuyu seen site bi. Mhm. di nuyu ñëpp wasalaam. Mhm, ñun tamit ñu ngi lay jaajëfal bu baax a baax ci disponibilité bi ak tamit uh, jàmm jeeg yooyu buñ lay am uh, ñu ngi la koy jaajëfal bu baax a baax Zo nag uh, ku la xam xam la ak maam. ñu gis ni fan yi nag saf na sàpp ci réseau bi mhm. maanaam ñu ngi koy efal ay coow ci mhm. diggante moom ak yaayam nga nekk nitam tey lan ngay wax ci loolu loolu moom li ma waxoon rek laay waxaat maanaam diggante yaay ak doom loolu ku ma cee laaj da ngay sonn du ma ci wax ndax man sama diggante ak man ak sama yaay yoon kenn nekk ci dugaluma ci kenn diggante mag yaayam diggante mag yaayam la bu ñu jotee ñoom la bu ñu jubóowee ñoom la ndax nag jote fu mu amul sax nag juboo amu fa place en tout cas xam naa ne maam ko fonk ndeyam la ku bëgg ndeyam la te ko fonk ay mbokkam la beneen bi ci topp mooy maam nit ku baax la nit ku baax la te nit xam àdduna la bari na xadar nag kenn du ko dindi kenn du ko dindi mais ku baax la beneen bi ci topp mooy miis mi yaayam yaay ju baax la nil na parfait kenn matul mais nag maam sant naa yàlla bi mu toogee ne sama yaay lu mu ma wax neex na ma sama yaay lu mu ma def neex na ma ndax dafa firndeel waxu olof njaay rek ndax olof njaay moo ne yaay doj la doom bu dalee ci kawam mooy toj soo dalee soo dalee ci kawam yaay toj comme maam finaalu na thank loolu la am lu may wax ci loolu di leen ñaanal yàlla may leen jàmm diggante ndey ak yaay ndax man loolu laa soxla ku ma koy waxal ci sama diggante ak man ak sama yaay Mhm. mais en tant que ngay nekk ci soo bi est-ce que war na tamit mu am confiance ci nit ndax bi ñu xoolee topp ak feer yi nee nañ euh, yaayam dafa jóg di ko kalaame ak Fantôme Mboup mhm. mais Fantôme Mboup moo dawal li nga xam moo di enregistrement yi est-ce que tamit loolu war na ko ci digganteem ak nitam. waaw loolu moom amul du ma nekk naan la lit loolu dafa amul. Mhm. Miss heure bu woowee Fantôme Mboup man xam naa sax avant muy wax tey ci live bi man xam naa ni moom Miss heure bu wooy Fanta mu conseiller moo ko tax ndax Fanta dèjà moom Fanta maanaam Fanta neexut a waxtaanal Fanta ñun ñi ko neexut parce que Fanta dafa ñàkk kersa. Fanta dafa ñàkk kersa. Fanta waxam neexut Fanta du dugg ci détail soo toogee nga ne ma Fanta nanga mun naa la ah, li xa li théâtre kat waxoon sa joxe dafa raa. Mhm. loolu mun naa koo nangul te loolu kenn du ko bañ a ndax jigéen buy liggéey la heure bu mayee jotee dina mayee bu fay fayda jotee dina ko def ndax jëndal ndayam teere ba mu jotee dafa yëkkati fukki million ak lu teg moom fanta mu jëndal ndayam mhm. kon kooku bu nayee ci jàmbur yi feeñut ndax jox na ko ñu mu bokkal fanta lii daal laa xam ne mun nañ koo wax ci moom naqari deret mhm. parce que fanta rankiñ la day jàpp fanta rankiñ la dama koy wax damay toog maa ne la ñoom ñëpp maama leen gën ci lépp ci xol parce que Fanta moom boo ko defee moom dalay woon ne li nga ma def métti na ma maam boo ko defee moom mun na xuloo génn bu jeexee jeex na Fanta nag moom dala koy téyal wan ne la ne waroomaa maa yeb du dugg ci détail te Miss du dugg ci détail ndax Miss du moroomu Fanta Miss bu amee lu muy kaas ci maam moo jur doomam maam nan la mel ba Miss war koo ragal dem di ko kalaameeg Fanta luy loolu xalaat leen nag mhm. maam nan la mel nan la toll toll moom maam nan la toll nan la mel ba ndeyam war koo ragal. Mhm. ba ndeyam di ko dem di ko kalaameeg Fanta de loolu amul maam li ko yaayam war a wax mu ngi ko koy wax heure nag fu ne lay jóge ndax des fois wax am nit ñi am nu ñu waxee sax nga wax te doo xam la nga wax loolu la. Mhm. mooy loolu mais xam naa ne moom Fanta ci fulla ak fayda moom ak miis ci baax ki mu baax du yàq njabootam. te Fanta nag mun na génne enregistrement wu ku nekk xanaa sauf enregistrement wu maam yéen tamit xalaat leen. Mhm. Fanta mook maam seen jote bu njëkk ba ni mu mettee jote boobu ni mu méttee da dégg Fanta wax. maa may wax rek parce que moom mooy koo xamante ne su meree day wax Fanta nag moom da koy téye ci xolam. da won ni carrément waroo maa yab waroo maa fowe waroo maa wax lii ne pat moom moom ngërk boobu la moom moom moom gaynde la yoon moom danaan patt di raam ba yegg ŋànk sa loos yóbbu la <laughs> maam ji koy gaynde bu jigéen la yor mm-hmm. moom buy fette su sax war a ut lu mu rëbb ji sax pour lekk ko moom day feeñ day fës da gis xam ne kii li muy ut ji xaarul ku ko yëg ak ku ko yëgul mm-hmm. ay est-ce que tey euh, digganteem ak ki nga xam ni moo di Adamo war na tey di Willy Pandé mam mam ki nga xam ne moo di euh, Mame Ndiaye Savon parce que boo xoolee sax bi mu takk soxna nee na Mame Ndiaye Savon la may njëkkee te boo xoolee tey moom moo koy yàq. xadi barki dem bi may wax bi may may saaga fi Adamo du yaa ngi toog bi ma koy saaga ci bi mu duggee ci natt maam maman vulgaire bi dama koo xas waaye bi ma xëyee gis mu laay fal maam Ndiaye Savon xasuma ko dama ne ko yow munoo woon woo diw diw man la njëkk a woo xam nga lu tax duma ko xas parce que faralul maam bu faraloon maam ma bàyyi aadama diggante ndey ak doom da am droit de fayal ndey maam xanaa bu aadama faraloon bu ko faraloon bàyyi maam gis ci boppam. Adamo li mu wax merewuma ko ci ndax dafa ñëw ne doom yaa tooñ waxul nday yaa tooñ de waxul yaayu maam yaa tooñ dani maam yaa nekkul ci dëgg ci sa yaay mais loolu la doom kenn du ko jox dëgg ci kanamu ndaya nit ñi nag ñu xamul du ñu xamee fi aada moo wax waaye man mi nga xamante ne pël Fuuta laa dégg ñeenti làkk xam naa bu baax fa mu waxee ndax boo ma làkkee olof ma tontu la nga làkk ma pël ma tontu la nga làkk ma séeréer ma tontu la ci li ma la mën a tontu nga làkk ma français tamit ma tontu la ci li ma la mën a tontu kon ñeenti làkk yi mu ngi ci man foo waaye waxee xam naa ko. Hmm. Adamo dafa taxaw ne ko yaa nekkul ci dëgg yaa nekkul ci yoon te man bu ma am taxawoon it ma ne ko sa diggante ak sa ndey da ngeen am problème ma ne ko yaa nekkul ci dëgg maam bis bu ma ñëwee faral ko bàyyi ndeyam bu yeboo mu suur ma man man ku ma faral bàyyi sama ndey ma bala man da ma ci kees su ma jotee ak sama yaay su ma tooñee sax moo tey. ku ñëw nag faral ma bàyyi sama yaay ma suur la ndax fii benn doom bëggul ku koy tàqaleeg ndeyam doom bu ci nekk bëgg nga sa ndey wéeru sa ginnaaw kon lu mu def neex na la ndax tey nag miss won na ni maam maa la jur wan na ne la duma la yàq wan na ne la man maay sa ndey e wax bu dofee nopp yi koy déglu war a wér aadamo leen rek laa ko balaa amee ci wax ji mooy saaga yi mu doon saaga maam nangam mënul taxaw ne dafay défendre mis ba pare di saaga maam jigéenam la te aadamoo moom maam xam na ne aadama mënu koo xas man mi aadama mënu maa xas ñun ñu ànd démb kenn mënu cee xas sa morom ndax man damay taxaw audio yee ngi ni sama téléphone bi mu defee lu dama taxaw ma ne ko da nga waroon xaar diw ba mu ñëw nga laaj ko version am lan moo tax nangam sëpp ko saaga ko jaar ak moom na ma war parce que sama nit la man ma toog di bañ ne aadama sama nit la parce que su ma toogee ne aadama du sama nit naa fekk laa parce que damay dégganteeg moom mais nag déggante ci lu am fulla ci lu am fayda aadama duma woo ci kaa duma woo ci détail xanaa ñun suñu biir bu ñu jotee la may woo waaye kantaa keneen moom xam na ne duma ci dugal kon nag mënu maa taxaw ne aadama lu mu def du yoon de ndax moom dafa jël miis wéer ci boppam jël toor jox maam loolu kay savaale loolu amul maal wala. Mhm. wala yow mi bëgg sa ndey dafa am maal. déedéet yow mi fonk sa ndey daa am yaakaar sa ndey dafa am maal. yow mi war a dimbali sa ndey teral sa ndey yóbbu sa ndey màkk ndax aadama li mu def su amee maal. Mhm. waxal. déedéet amul benn maal amul maal. ndax nag kaay la doom ju dimbali ci nga jàpp sa ndey téyel sa ndey ndax aadamoo sikk na bépp sikki keroog nag bi ndeyam ñëwee Europe googu ku ne gis na ni mu ko tatagalee de comme ku la naan téyel sa ndey kooku sa jëm sa jàmm ak sa jom la bëgg kon amul maal. Mhm. Mm-hmm. Euh, problème bi nga xam ne instant bi nag euh, nit ñi tamit ñu koy ŋawtu ŋawtee gëmale ko ci moment vulgaire ci problème la natt ay xaalis natt la dem di tukkee moom lay voyager bu moom tamit mu génn moom tamit wax la ko saf tamit génne li ne ci xolam en tant que nga xam ko tey. Adama moom wax naa ko keroog ma ne ko da ngaa sikk loolu moom jarul sa sor xam nga tax ko Adama moom naa ma ne ko da nga sikk njëkk ngaa tànte ci maam maman vulgaire jàllu nga tànte jàllu bii nga ne am nga occasion parce que sa jigéen parce que man ak moom laalante ne ba mu ne. waa na ko jox xaalisam kon wax ko mu jox ko ma ne ko dina ko jox xaalisam ci bu ko waree jox bu fekkee war na koo jox mu ne ma parce que sama jigéen la ma ne ko ah kooku sa jigéen la da nga défendre sa jigéen man ma maman Virgé sama jigéen la. dëgg la bu ko waree jox dina bi ma woowee ma maam mu expliqué ma ni mu demee ba mu leer dama taxaw xam loo ko ni bu ko jox dërëm feek natt bi jeexul te loolu ku ne bokk nga ci natt xam nga ko boo bokkee natt commencé ba jeexagul nga bàyyi. ñañ ña nga xamante ne ñoo lekk sa sotti ñooñu kay da ngay xaar bu natt bi jeexee ñu nattal la sa xaas jox la ko waaw wax jooju fu mujj mujjul fenn ma moo nekk ci dëgg bu ñu demoon ba pëlis maman moo nekk ci dëgg natt nag xam nga nit ki lan la war a lijjanti teggi naa demal yow koy toog a xaar ba sa teggi jot boo teggi lu nga doo koy kaas natt boo xam te ne vingt six personnes xaw ma vingt sept personnes juróom benn nit teggi ci natt boobu dafa soreegum xanaa des na fukki nit ak ñu taj maman vulgaire moo gën a sikk mun nañ koo waxal lu nekk mun nañ koo waxal lu ne mun nga ne dafa sikk mun nga ne dafa nàngam mais nit ku ragal la nit kuy sóoraale subaam la nit kuy bàyyi xel ay mbokkam la ndax maman vulgaire doful baayam kër sëriñ Touba lay liggéeyal baayam boo demee Touba fekk ko ci ëtt Seex Ahmadou bàmba bi mu toog di liggéey man xam naa papa maman vulgaire keroog bi muy may maman vulgaire jëkkëram bi ma ko booloon bi mu ñëwee tiim jëkkër dañu ko tëll pes waaw murit day wone ni murit la maman vulgaire baayam murit la njàng ba ci suuf baayam kilifa la maman vulgaire du def luñ koy xeebee doful waxal ko lu ne ñamewul du njublan du trian du lekk alalu jàmbur man loolu xam naa ko ndax bi ma xamee maman ba ñu toll nii ci ñoom mosuma dégg kenn ku ci lekk junni moroomam muy bor wala nga sàcc ko amut te pourtant ñoo gën a bëgg xaalis waaye ba ñu bëggee xaalis fexe nañu ba liggéey maman Vicky natt bi bi muy am fekk na natt bi dafa maman Vicky dafa tukkee natt bi doo koy démarrer natt bi dafa démarrer quelques jours rek maman tukkee kon foofu ana xaalisu natt boo sotti waaye yow man sax man boo man boo jëlee sama xaalisu natt nga tukkee ko yow fexee rek ba bu may teggi nag ma teggi bu mm-hmm. dara manqué mm-hmm. man noonu laay gérer nattu mu ci mel tamit genre xaas yooyu li leen koy jiñ bari na ba pare tamit soo xoolee nekk nañ ay jigéen yu brave yoo xam ni ngi liggéey mais ci benn jour mën nañ ko yàq lu ci mel ni démb boo xoolee xew vraiment bi li maam li nga xam ne moom la ma vulgaire doon maye côté maam Ndiaye Savon en tant que tey nga nekk seen góor est-ce que tamit loolu jé nekkul nga nga conseiller leen wala ñu wàññi ko. dama ci conseil kenn sama bopp na ma soxla. en tout cas daal bu leen kenn laal te ñoom bu ñu tooñ seen xaalis ñoo ko liggéey xam nga mënoo fekk ponk lu magum jëmm bu liggéey xaasam nga naan ko wàññi bul may sàmb bul may ma demb te bu la mayoon nga jël dañu waxante dëgg kat nag ndax démb Mama Vilgué bi muy tàllal xaas di ma jox di ma ko baatare dama koo jël kon su ma ko dee conseillé ne ko bul jox keneen bu boobaa du ma gor mhm. ndax sama téléphone bii laa am xew ma yëpp démb mu ngi sama vidéo yi ku ma woo sa xew balaa may dem danga may jox force loolu force la ndax sama téléphone bii laa am vraiment business man ak moom sekkuñu loolu kooku lu ko waay defaral jar na ko parce que Demba Ndiaye fii nga toog bi mu fi ñëwee ci sama immigration bii junni yu bari la tëkkat jox ma ba pare boole koog su ma yóbboo foofu client moo gën ci samay client moo gën ci samay nit yu ma koy booleel moo gën ci samay nit ñi nga xam te bu mu bu xew jotee moo gën ci ñoom du leen sonal dina leen jaay lu baax doo ci jooy kenn présenté wu ma ko nag dañoo ñëw ñu daje ci xew ma Mavico mu ñëw ci salon ba mun ne ma xàmmeewoo ma ma ne ko déedéet mu ne ma xàmmeewoo ma ma ne ko déedéet yow la kan xàmmee na sa kanam nii rek mu ne ma Mavico bi mu ñëwee sama place doon live yow lañu doon wax zobal de man la remaa ma jàmman santeeg moom kafak moom foofu balaa muy dem mu yëkkati ñaari junne tëgkat ci saagam jox ma ñu jàmmoo ñu defante téléphone ci même jour la nga xamante même jour la ñu miinante maman Vilgué teewul sama loxo ne ma kii mooy Rema keneen teewul sama loxo ne ma kii mooy Zo mooy def boole. Mhm. ci maman nag la xame bi jógee ndax maman moo tax ñu gis Rema ba xam ko. Rema bis ne xew ku mu dem ku nekk ñaqam dem na ci yow dañ koo fay bor bi de Rema bis ne ku ñëw xew ma man mi démb damaa demoon uti ji te pourtant la ma amoon yëpp dama ko faa maye géwël bu ma ñaan ma may la. man balaa balaa géer di ma teral may naa géwél man. macha allah moo tax bu ñu dee wax ay géer nga waroon non non man su ma duggee ci biir géwél yi damay gën ci ñoom parce que damay xool képp kuy sama nit ku baax ma balancé la ko man géwél du ma may de géwél mayu ma maay tëkkat damay géwél ndax ñooy sama géwél lu ma am moo ma leen gënal ndax samay waay la ñoo ma mën a wax lu sedd sama xol man li may wax ci nit ñi lu baax ñoom ñoo ma ko mën a wax. kon vraiment business dañ koo fay borom vraiment business nit ku baax nit ku am valeur nit ku am jom nit ku ña ñàkk ki ñaan te nit ku am kersa ñu koy masow nag démb li am ci xewam bi xamal ko ni nil na parfaite erreur mënul ñàkk fu ne lay jóge te ci suba gi man mii ci ñi naroon njëkk a jàppanteeg hôtesse yi ci laa bokk te maa ngi jéggulu hôtesse yëpp xam nga bu yàlla ne bis bi nii lay xumbeere noonu lay xumbee te dagaan waaye borom bis bi ci boppam moom war woon am bis bu mel nii parce que moom xeexul xuloowul waxul yóbbantewul ay wax jottalantewul ay wax dañu waxante dëgg nag mu mm-hmm. waxante dëgg mm-hmm. ci noonu tamit gis nañ sa jigéen Mame Ndiaye Savon moo fa doon jàppante ak ki nga xam ne moo di engagé <laughs> waaw ñoo fa doon jàppante moo tax maam xaañ na ko daal engagé tamit wax na ko lu ko saf <laughs> maam xaañ na ko daal teel moom dafa dama engagé démb ci guddi rek ñu ngi dégg engagé pour te dire man ak moom ñoo bokk benn nijaay engage mm-hmm. sama deret la ñoo bokk benn nijaay vraiment dem bi ma laay fecc ci guddi gi bi ma daggee sama laay woo na ma waxtaan ak man ci respect ak ci dal ak ci tey nangu ni dafa juum ma ne ko tey bu ko ku ko defoon sa jigéen boobu du la neex sa leader boo ko àndee ba foofu man ma toog songanteek moom dina la neex mu ne ma dee ma ne ko man bu ma fa ma fa xeex mi fekkoon bu ma lay geestu di la song du ma ko tey ndax sama leader dama ko fonk ma ne ko diw ba maam ma ne ko yow xam nga ne man damaa fonk maam dama koo bëgg kenn ko laal lu waaye di def defal waaye man maam kenn du ko laal man samay jigéen kenn du leen laal am na droit nag ambiance la ca premier bi mu waxee mu ne ma li ma fa ma ne ko déedéet yow yaa ne diw munul nga yem ci terrasse nday rek yow yaa ne diw ko tooñ ma ko moo tax bi nga waxee loolu daal fekk si na la maam xam naa ko te kaa max la dañoo soree de waaye bu ñu jege wante woon rek maam da koy songu songu da koy songu lu mu am jël xam naa maam daa pànk ji koy góor la yor fitu góor a ne ci moom te làmm law bee ne ci gémmiñam bii man xam naa maam yaa ngi dégg engagé nag man li ma ko demb rek laay waxaat fii man ki ma gis démb ci xew mi du engage parce que engagé melul nii xaw ma luy problème bi nag sànq tamit maa ngi koy seen muy live di wax mais gis nga nit soo nekkee ci àdduna sa palmarès rafet doo ko yàq ndax yi wax ndax mën a mën a fa mu nekk yow yow yàggu fa ñun ay góor lañ duñu ay jigéen il faut tamit ñuy sedd loolu suñu bopp ndax xas yi ñuy xas ak des fois dafa doy da ngeen góor jigéen ne da a bëgg jigéen ñi nangam sangam man ku ma gis ci samay biir jigéen fulla ak fayda moo ma fa yóbbu man tontantewuma kenn jëlaluma kenn micro maam mii su ma waxoon songal Diva Saliou dama ko naan xoolal bu mu amati na gëj tay man maam xeexloo ma ci kenn te bu toogoon ba bëgg maa xeexloo ma ne ko pour lan man kay lu may bañ mooy ku ko tooñ ba pare bëgg koo néewal doole bëgguma ko mhm. mais moom bu tooñee du ma ànd ak moom man heure bu maam jotee ci live bi rek ak nit su ngeen gisee génn ma rek wax rek xam leen ne daa tooñ àtte noonu la heure bu ngeen gisee maam jotee nit ci live mu wax wax ba dagg ngeen toog ba lu ñaari waxtu jàpp ñetti waxtu ñeenti waxtu gisoo leen ma ma génn man xam leen ne daa tooñ mais heure bu ma génnee rek dañ ko tooñ parce que man damay bëgg la may bëgg fayda may bëgg lu am njariñ wax njariñ nit njariñ kenn du ko lekk kenn du ko naan damay toog ñu bari dañ naan du ñu wax maam dëgg dañ koy wax dëgg sànq man ak fu dañuy wax téléphone ma ne ko diw da koo tooñ te wax naa ko engagé ma ne ko bul juumati lu mel nii. engage engagé na tudd turam dafa wax ni Diva Sané non dafa taxaw ne yaa dimbali ma ne la yow yaa lu mel ni coow am fi. Mhm. wax naa ko engagé de ma ne ko yow coow bi am fi jàll. boo taxawee ne nit yaa teral sa ndey yaa dimbali sa ndey yaa may sa ndey loolu neex na. waaye boo ne koy tegoo sa ndey ci réseau yi torox nangam wax lu méngoog lu nit kooku noonu dèjà man bu nekkoon man engagé bu fekkoon man la loolu arrivé engage ñu daje mu wax loolu lu ma bokk ak moom dama koy song te man bu enga lu mel noonu bu daloon engagé ñu wax ko engagé ma toog fekk engage ka ko koy wax dootu ko del ndax bu ma ko jég dama koy dóor waaw waaw man engagé lu mu métti métti sama deret la de moo nekkul ci dëgg nag moom laa bokkal ndax bu ñibbi tam maa ngi moomay ànd ñibbi waaye moo tooñ moo nekkul ci dëgg mer na meram nag mu ngi wax lu ko neex ay wax ndax nag fii kaay li ma waxoon démb rek laa koy waxal wax ko ci téléphone bi ne ko fii ku fi yàq sa tukk si ngalam rek da ngay riiti riiti mu tëla muy góor di jigéen dañuy il faut ñuy sedd suñu bopp cër bi ñu yàlla may xam ne ñun duñu ay xale yu jigéen ay góor lañ mm-hmm. mun nañuy taxaw suñuy jigéen mun nañ leen protéger mais pas ba ñëw di xeex xeex mun na ñàkk ay xeex ay xuloo daa gësante def ma ko kenn man ku ma bëgg a ci samay jigéen ma dagg la sàndi bu ma toogoon léegi maam def ma loo xam te ndefuwul du ma ko laaye fal ku ma kook ñoom waaye dama koy suur te man ni ma sonne ci samay jigéen ku ma ci def loo ma warta def dama lay suur de barki salaatul fàtte fii laa ko waxee bis bu ma toogee ku ci mel ni fantambub wala mama vulgaire wala maam Njaay savon wala tikke lawbe wala vraiment business wala ñoo xam te ne dafa samay jigéen pros lañ ñu sonn ci man may sonn ci ñoom bis ma toogee ba nit def ma ci wala wax ma ci loo xamante ne àdduna bi yëpp dañ may xeeb ma dagg la sànni suur la dama koy teel a wax kay man dama sonn ci ñoom de lu ne laa dégg ndax ñoom lu ne laay dañ ndax ñoom comme fonk nañ ma nii nag moo tax ku leen laal laal ma mm-hmm. te man maam kenn du ko laal wax dëgg fa neex yàlla. Mm-hmm. mais tey di ko wax lu ko neex. nii ma toogee jàkkaaroog sa écran bi di wax lu ma neex noonu la engagé def rek ku ne sa kanam yaa ko moom. mais sa mbokk la. sama mbokk la waaye te yedd naa ko li ma koy yedd tere ak li ma koy tere dem terewul tey la gën a mën a génn wax loolu koy bëgg-bëggam la parce que moom moom plateforme am te moom moom image am image am bu baaxee baaxalu ma su bonee bonalu ma man sama image bii heure bu ma xëyee maa ngi koy jéem a sàmm man bi may jotee góor ñi sax kenn déggu ma man. di may jote góor ñi kenn déggu ma. Mhm. te pourtant chaque jour ma am lu ma naqari ci samay jigéen samay jigéen ñii nga xamante ne ci ñoom laay ndaw chaque jour ma lu ma naqari ci ñoom chaque jour mais nag kenn du ko xam ci man ndax xam nga lu tax des fois nga gis say jigéen ku ci wax ba wax lu ëpp. des fois nga gis ku ci def réagir noo xamante ne warul parce que ñoom motuñu fii ku mot doo juum yàlla rek kay wane ne man buur bi man maay dul juum. ndax engagé niñ ko tegee ni di ko yàlla ku ne nekk di wax ci moom neexuma ndax démb damay zapp sama téléphone ba di yem ci euh, vidéo engagé may seetaan pour man waxulu garaaw maa ngi toog ak sama yaay engagé bi mu waxee ba dagg saaga bi ma nee téléphone bi nga bëj sama yaay kan la déw la ma ne ko waa sama yaay amul lu mu waxul ne ma kañ la nangam ak sax engagé kenn gënu ko nday nday ju baax la am yaa jëkkay xam nga lu ñuy jooy ci moom teel a dem sama nijaay mu bokk ak yaay engagé ndey ak baay kenn gënu ko man mii bu ma dee takk jabar moo may tekkat jabar mooy yeewi di jabar àndil ma mooy takkal engagé te moo takkal sama taaw yaay takkal ki topp ci sama taawu yaay kon nga foofu dañu bokk saalum gii pasi gii ñooro gi ñoo fa dëkk mais man maa focaliser wu lu nit wax rek man ne man pël Fuuta laa parce que man débat boobu nit ñi di débat daf may neex lu mais man kaa max la Sénégal fii bu génn doon am man du ma bouger centimètre sama baay fexe na ba marqué empreinte am ci réew mi ay doomu Saalum Saalum di doomu pël bokk ci ñetti xeet yu kenn dul dindi may sëtu walliw di sëtu wàlliw pire man ci samay maam dund nañ ba am téeméeri at ak lu teg seen bëñ musta ci samay maam am naa ko man man sama maam taar woon na bañ koy jaawaleeg jinne man am naa lu ne ci samay maam kon sama liggéeyu maam bi mun naa mooy nag waaye duma ma ko yàgg du ma ko yàq de mun naa xaw a barastiku rek waaw mënul ñàkk xam nga comme ni ñu nekkee ci tiktok bi nii tey bu ñu la waxee ne man mi suñu kër bu ma la fa yóbboo laajteel kii soo toogee yow danga naan non non zoo yow waroo mel ni waroo toog ci tiktok bi di wax. Mm-hmm. da nga naan waroo toog ci tiktok bi di wax et tout ça. parce que fa ma bokk la kon engagé bu mu juum man nag li ma mën def naa ko woo sama mbokk waxtaan ak moom ci xel mu sedd yedd ko te xam ni góor du jote ki jigéen def naa ko bu ko xelam joxee ni nag moom loolu lijjantiwu ko jamaa foo lay dox du nee na léegi bandi la engagé du nee nga bandi nga demal ma duggal ci ay affaire de banditisme l'essentiel daal li nga def ànduma ceeg yow foruma ceeg yow te li nga def du dëgg du yoon góor du weranteeg jigéen ba xuloo ak dàggasanteeg yooyu di ci am yooyu moom mun na ñàkk digaluma ko sama benn nit digaluma ko sama benn frère digaluma ko kenn koo xamante ne góor nga te yore say jigéen ndax man tey bu ma dëboon bu ma tëboon rek euh, jubal ci jigéenam boobu du ko neex ndax fii ku ci nekk nag sa leader nga am eh, te man na kaamax la sama leader neexut a neexut a gañe de barke Seydina Mouhamed. maam rek sama leader. Mhm. barke Seydina Mouhamed damay jàkkaarloo nii wax ko man ki ma àndal neexut a gañe te neexut a réew mi dafa xam lim fi moom mu téye ko jël ko jël waa lam te du nangu kenn ku jël bosam moom ku mu jëlu sa bos kenn du jël bosam. Mhm. ki ma àndal dafa fexe ba jël paie ndax bi am am jotee yàlla bi mu ko ko joxee xañu ko kenn ku ñëw nag xaj na ci. Mhm. te maam moo gën a oyof ci lu yàlla bind. dafa oyof. ndax yëgul dara. Mhm. ba pare tamit Karbala génn am wax joo xam ne sax nit ñi ñu ngi koy ñu ngi koy def nii li ci mel ni nee na yéen ñi nga xam ne yéenay ànd ak nit ñi yéenay indi problème bi euh, ba sa fet sax mi ngi naan euh, da ngeen a war di oteesu di def seen voile brodé yéen ñi nga xam ne yéenay gunge seen leader parce que yéen yéenay indi coow bi. waaw Karbala. ah bu fekkente ne wax ji man dama ci am wàll moom mi bu ma daggee otees du ma ko bàyyi ginnaaw di ndax moom sama xarit la ah maanaam nga yooyu déglu ma maanaam wax Karbala man dama koy génne yéen parce que xam naa ko moom du wax lu ndaw ay wax yu ngand lay wax mais dama lay xamal ne rek moom bu fekkente ne man am naa ci wàll ca la muy wax xalaatul te xam na ni man ku ma àndal ci samay jigéen gar naa ci sama bakkan ànduma kenn di la jay ànduma kenn di la def heure bu ma daggee voir rek garaam bu rek moom na xam ne am na fa marinière gu jot doomeera am na pare mi ngi naan eh, ñoom ñëpp ba liggéeyuñu dañuy topp ci ñoom di leen maral parce que xaalis bi leen di jox tax na kenn du ci taxaw wax sa leader dëgg. ah kon xam naa ne bokkuma ci boo waxee waxul liggéeyul moom man moom maa ngi liggéey sama place nga ma fekk kon Karbala waxoogu ma <laughs> waaye naroon naa la ragal hôtesse. a <laughs> nga Karbala dama koy wax xadim dama nga naa Karbala moo gën a réew amul yar dafa neex te moom lu mu bëgg a wax lay wax yaa ngi dégg mais nag comme man am naa sama pala maa ngi ni fii laa toog di liggéey yaa ngi dégg démb de bi may raaf maa ngi koy seen ci laa naan ko nangam ak sangam kooku sama xarit la kooku lu mu wax sax fekk ci man la jëm sax neex na ma mhm. balaa ak kar balaa sama xarit la mais dafa nekk nit koo xam ne moom dafa naqari deret dafa gaaw a gis boppam waaye tamit bu waxee loolu nañ seet seen bopp ñoom bonga maa ni ndax ñoom ñooy taasul ñoom ñooy taasul astu taasul penda taasul xuja taasul moor taasul moodu taasul addu ñoom tamit te bëgg nga maanaam nañ defaraat seen wax ah mun na bañ a nekk ci ñoom sax ñoom li ñu gisee moom Karbala li mu gis ci ñun ñun ñun influenceurs yi di toog rek ba wax ñu lii rek moo tax ma delloo leen ñoom bëgg nga maani lii hmm. ndax démb ñoom bëgg nga maani ku ci nekk ñoom nga taasoo ku la neex te ku ci nekk nag ki nga ki nga gën a bëgg day feeñ xam nga fi may waxee. mais démb Karbala bi muy wax waxal na maam tourné na tamit. waaye Karbala moom bu waxula maam ku muy wax mais wax tamit ak diva. Karbala maam mooy ndayam. mais wax naa ak diva. man daa xam la. ndax waaw mais saali bi dugg na ko. mais nga wayal na ko taxaw ci kaw nga wayal na ko. Mhm. waaye ku xool xam ni. Karbala maam la bëgg maam la wayal ndax moo ne ko maam yaay maam Ndiaye Savon yaay jàmbakati diw bi yow yaa téye yaa poñe xale yi yuuxu mu ne ko nee naa la tu es capable de diriger Sénégal sans résister Karbala moo ko wax ma dégg ah boo di nit ki yow tu es de diriger Sénégal sans kon maam mooy champion on se dit la vérité. Mm-hmm. Karbala maam la bëgg te maam Karbala la bëgg. Diva hmm? Saliou Diva Saliou waaw taasul na ko nee na ko danga ngaa baax da ngaa kore da mën da ngaa riis da ngaa gën da ngaa baax kenn du yow si man kenn du yow si ñun loolu la ko waxal. waaye li mu waxal maam moo ma ñor. mais Bal est-ce que jox nga fëx maye parce yow ci jàmm lañ la xam. Ah, dëgg ne man wax dëgg fa bi ma ñëwee li ma mën def naa ko vidéo ne boo bëggee ma tegal la ko. Mm. bi ñuy buñ koy way ñëw naa vidéo ko filmer ko waaye moo ma xeelu moo tax man tamit ma dabale vidéo bi romb ko nële. kon envoyé woo ko. dama ko war a sama compte te man tamit du ma nga tax wax naa ko engagé ma ne ko diw jotewu ma moom dara mu dagg ma sànni désobane ca man man ni ma désobane te bu ma boolekee ma boolek ko yaa ngi dégg. xam nga moom ñoom ñenn ñi lu leen di sonal man comme maam sama xarit la rek ci maam laa for rek ñoom waruñoo jàmmook man man yu détail yooyu nekkuma ci de. Mhm. man xoolal muy joojo gëloo wëg keneen ki nu mu tudd tutu astoog mhm. euh, taaliba sëriñ Babacar Si beeg Eva Sëriñ Son wak maam Ndiaayoo Tike Labe woo comme ci mën a doon ñoom ñëpp samay jigéen lañ waaye nag boo ñëwee woon ne ma ne yow jigéen nga man jigéen du ma gën a doon ful du jigéen du ëpp ful la boo ma wanee ne rek dama am ful la mag ma jur ma nga xool man jigéen doo ma yilif da man jigéen maay sa kilifa doo sama kilifa nag lu amul firnde neexul maam laa bëgg maam mooy sama leader xanaa loolu am naa ci droit. élection yi ku doon du ñëpp doon voté. Uh-huh. du ñëpp ci bokkoon. kan lañu jox bopp du sonko. dañu uh-huh. xool ku bëgg a gis maam rek xool ko ci sonko. li ñu am du kenn yàlla la. est ce que nga ne looloo tax kenn mënulu leen dara yàlla moo jël ci ñoom maanaam yàlla moo leen suy bayre yàlla moo leen sang bayre yàlla moo jël seen biddéew teg ko ci am-am ci koom-koom ci coow ci mbooloo ci lépp Sonko ni ko ni mu jaralee nit ñi rayante maam noonu la amee ñoo xam te jaral nañ ko rayante te kaamax la nag yoosu Ndour def na fi lu ne Thione sekki ndem si yàlla def na fi lu ne bës bu ne am na fi ku na génn na fi bësu senegal ku ne xam na ne nag deux ans trois ans bari na ci nañ waxante dëgg rek mhm. ah maama ngi toog ba tey de Sonko mi ngi toog ba tey de ku nekk nag na xool te xam ne maam mooy mooy Sonko Sonko mooy maam <laughs> nañuy dindi jomaa bi <laughs> am na solo. waxuma dëgg. dëgg mais bii nag ñu ngi jëm ci feeti décembre te tëyër ga ana ngay waajal Sénégalais yi. collection décembre bu doy waar. nii mois bi bu génnee nii rek ci lañuy jublu lu doy waar xale yu góor yi ay ay ay près du corps yu xeere ay ensemble yu doy waar fan yi ma doon ñëw xale ngi ko gis ay robe yu doy waar ay robe fourrure ay robb taille yoo xamante ne macha allah boo ko solee sa xol bëgg nee naa leen man ku ma soxla boo ñëwee gis nga tunique bi nu mu saftoo nii fees mhm. fees tepp maa koy def mhm. te lii nii nga gis ne xale yi dañ ci doon jàng raam lii nga gis ne xale yi dañ ci doon jàngaraam nii rek te couleur boo bëgg nag boo ci bëgg mun nañ la koo defara ba pare tisi xew tey baas robb ñoo ci toog man nag nekkuma ci réew mi comme nii euh, ñëw lu ma ñëw rek duggal ko ci sama panel parce que man dama am sama public bopp dama am ñoom dama leen di ñëwal seen xol di bëgg ndax man boo xoolee man ñi nga xam te samay jege ñaale la ñëw ñëwalu ma ci kenn ñëwalu ma kenn ci ñoom bu dul ma yëkkati na la am may la jox nga sol bëgguma sax ñu andi ñëw ci man parce que man soxlu ma promo wu ñëw ku bëgg a ñëw lu ci man da ngay ñëw ñëw lu ci man ndax boo ñëwee prix ba may wax keneen laa lay wax bu ma ñëwee nag ba toll fenn foo xamante ne tey man ci ñoom ku ma ci ñawal ba dara desul ma ñawal la nga am ak nga ñàkk da ngay fay force la mayuma kenn sama jigéen ñi may àndal ak keneen ak ndax fii fay moo ko fo fay moo ma fi baax comme nag na ñëpp daw si maa ngi sax mbaa ba pare beneen yoon bi ci topp ñu ngi am espoir boo xamante ne mu ngi fii espoir bi boo bëggee xam maam xam maam espace bi maa euh, Khadija moo ko yor maa ngi ko teg ci loxoom espace bi boo bëggee xam maam soin de visage pédicure manucure yaa ngi dégg bëgg ku la massage ak massage mag ñu njëkk ña <laughs> waaw teg la ci suuf dampee la ay reen ak karité bi ak boo xam te ay ay ay ay pièces la ay xeer yoo xam te dañ koy teg sa yaram mu dugg sa yaram feebar bu fa nekk da koy génne ay bëñ yëpp dama koy defar bëñ yi may defar nag nekk comme bëñu nit ñi def tibb ci ciment bi tabax la Euh, na leer man séquence laay liggéeyee da ngay ñëw ma jëlale la trois séquences su fekkee sa bañ yi dafa xàll ñu weexal ko tàll bu fekkee da nga am bañu kawlax yi da jël cinq ba quatre ñu defaral la ko ba mu baax suñu bëñ yi ñuy defar du yàkkamti laser la moo tax comme nag place bi ak suende bi ak fi ñuy defaree xammaam bi yëpp benn la ku ci mel ne xaadi ak awa ñoom ñoo ko yor ñoom ñoo fi toog di gérer yaa ngi dégg mm-hmm. am na keneen ñeneen ñoo xam te nag ñu ngi a ñëw pour le moment nii ñun ñoo ci nekk képp koo xam ne soxla nañu rek après dinaa la jox sama numéro nga jàllale ko ci suuf incha allah rabbi en tout cas fii moom ba pare boo amee xew da ñëw ñu xammaam la soin de visage de la defaral la ay sil ak ñu teg la fu bakk ne nga photo la tegee ci siège bi nga kontaan buñ la tegee ca salon bi nga kontaan buñ la yóbbee fee nga kontaan te incha allah rabbi da da ngeen fii ñëwaat defar seen yaram mënul ñàkk ndax xam naa ne jaabante bi métti na ndax li ma gis ci journaliste ci élection yi seen bët xëmb xëmb xëmb journaliste ngeen poussière poussière poussière ba kenn xàmmeewu ci moroomam dama jékki-jékki dégg benn journaliste mu naan ana Abdou te boobu mooy Abdou naan ana Abdou ana Abdou <laughs> boobu moom muy laaj Abdou mooy ndax poussière waaye comme Sonko gañan nag alhamdulilah ñu ngi sant yàlla bu baax di ko wax lépp lu muy ut ci yafam yi yàlla na doon ndam ndax man moom laa àndal man Sonko laa na leer patriote cent pour cent daw ma ci dara barki sëy dinaa ma xam bu dëkk bi neexee patriote la bu dëkk bi méttee patriote la ndax sama mag bu góor moo tax ma xam Sonko moo tax ma xam histoire Sonko muy Moustapha Balde mu nekk patriote pire Sonko da ko jaral lu nekk kon nag dañu bàyyi Sonko ñu may ko temps mu liggéey parce que nag ci réew mi la bokk te yàlla dimbali nañu ba am nañ góor gu am fulla muy Sonko ànd ak jomaay te liggéey li ci des na yàlla mayaan na leen ndam bu ñu tas yaakaaru jeunesse bi parce que lu tax bu ñu tas yaakaaru jeunesse bi mooy jeunesse bi dañu yaakaar ginnaaw yàlla suñu borom dañu yaakaar sonk ñun dañu yaakaar sonk te dañu bëgg sonk te sonk li mu am ci li mu jël ci ñun dafa foor Sonko dafa jël suñu xel jël suñu xol jël suñu xalaat jël suñu doole jël suñuy kart juróom yi yëpp Sonko da koo jël ci ñun kon bu sonk liggéeyu rek wala deful la mu waxoon nag ñun rek dinañu xaw a métti te yàlla bu ñu am gàcc ci moom barke Seydina Mohamed te xam naa ne du ñu am gàcc ci yow. Mhm. parce que xam naa ne yow ak jomaay di ngeen ñu liggéeyal suñu réew. teg ko ci yoon ba bu beneen yoonatee bu ngeen soxlaa pour ñu votal leen day yomb ndax ñun ñëpp dañoo foogoon ni tey du ngeen am dara te xoola heure bu ñëwaatee mu neex kon xoolal xam leen ni jinne yi sax ñu ngi seen ginnaaw ndax yàlla nag xale la àndal. Mhm. yàlla xale la àndal. Mhm. à bu fekkee tamit danga may kii. laajaat laaj ma gaa balaa may gërëm. <laughs> ñu ngi lay sant bu baax baax dañu lay bàyyi nga gërëm ku la neex daal di tàggatoo suñu xarit bi Zo Baldé. <laughs> maa ngi gërëm sama waa live avant tout d'abord. Hmm. soxna Aïda Saliou. ah nañu abonné bi Univers Info. nañ ab seen kii bi nu kii nu mu. Univers Info xoolal. Mhm. yéen ñi toog di ma seetaan yéen a may dégg. abonné leen ci Univers Info mu ngi nii. Mhm. Univers Info mooy site bi nga xamante ne moom mooy doxal di def waa timu Maam Ndiaye Savon su ngeen bëggee rek Maam Ndiaye Savon te bëgg ba daw leen ci Univers Info ngeen abonné ci ñoom ci YouTube bi ci fépp seen plateforme yëpp Univers Info la waaw kon daw leen ngeen profité ci ñoom ngeen abonné ci Univers Info mooy site bu wóorte bi tey leeral beneen bi ci topp maa ngi gërëm sama waa live di leen gërëm ñoom ñëpp di leen sant parce que ñoom ñoo may suivre ñoom ñoo may déglu ñoom ñoo may dooleel. Mhm. di sant maam di sant samay ñaari waajur. di sant samay yaay bu baax sama tànt samay waa kër di sant samay frère bàyyi ma kenn jiba balde bint boobu kumba di sant ñëpp di sant sama waa place sama emprunté ku ci mel ni faawele ah nee naa ko ba dara Sarr rek kay maamam. waaw maam Ndeye maamam di sant Khadija sama jigéen bii nga xam te nag kenn du moom. Mhm. parce que nag nit bu la jàppalee da nga koy wax. dama ñëw fii mu ne ma nag jaru ngay ut appartement jaru ngay ut studio jaru ngay ut sambur ñëwal ñu dem sama kër nga dëkk jox ma fa néeg lal defaral ma ko ba mu baax bu ma xëyee wàcc bu ma ñëwee may fekk jànk bu cuuraayal ma ba mu baax sama yére yu fi jóge sax des fois di dem kër ga ñu koy fóot sax neexu ko mais nit du mën lépp rek nga ne da nga koy teg lépp mu maa dimbale añ ak lépp day ñëw Xadija ak Awa maa ngi leen di sant bu baax parce que ñoom ñoo ma dooleel. Mhm. sant bu baax. sama emprunté la waaye sama rakk la Moussa tamit maa ngi koy sant bu baax moom it sama emprunté mais sama doom la ndax du ndey du bàyyi ay famille teg ko sama loxo kon ni ma santee Fawel sant Latir sant Moussa noonu lay santee ñëpp di sant samay am di jàmm nag di sant nag ki nga xamante ne nag mooy maam Yacine ajaratu xujjaloo mooy yaayam ma dikke ñaa mooy baayam borom téeméeri junni yi ci man weer bi lim ma ci may mun na ma may weer mu may ma lopp téeméer junni te du ko mat weer yi daa moom daa day xewoon rek nu ko yónnee sa fee rek mu yónnee ma su xaalis bi baree ba bari mun na duma la ko wéb sama cag-cag bi parce que moom buggul di ma may sa feree di ci génn kon naa jaratu xujaloo mooy sa yaay ma dikka ñaa mooy sa baay maam yaasin maa ngi lay nuyu mbokkum nday mari mari nee naa ko mooy nag série série série série kii international bi nee naa la nag euh, maîtrise nga bokkal di sant sama jigéen ñoom urul ay ni ñoom lima di sant ñëpp bàyyi ma kenn surtout urul ay ni mm-hmm. série série tout court maa ngi koy sant bu baax a baax parce que dafay jàpp ci sama yëf ci lu bari mm-hmm. disa céréal moom tamit ak bindu ñoom ñëpp maa ngi leen di sant parce que fii ñun comme tey su may génn dafa am ñu may dooleel su may génn bi may dem ci xew vraiment bi samay jigéen dañ ma boo demee bu nangam de boobu sax lii amagul ku ne di la woo maam ku mu jotel ñu wala ku bëgg liggéey ci maam woo ma loolu su amee rek war nañoo sant. Mhm. di sant maam Yacine di sant Marie Marie moo tax ma xam maam Yacine. Mhm. kon maa ngi koy sant bu baax a baax a baax di ñaanal jëkkëram jooju yàlla na ko yàlla may wér bëgguma tudd turam ci internet bi comme international la di leen sant yéen tamit bu baax di sant ñi ci kaw ñoom Yacoub Babacar sama fere yi fi nekk parce que des fois maa ngi leen di déranger damay toog fi di live di yuuxu di wax rek di yuux rek di wax di leen fàtt di leen sonal wala ma toog damay def lu ma neex laay def fii fii ma dëkk lu ma neex laa di sant nag sama aawo yaay asu faal nee naa ko bërëm zedi asu faal <laughs> bërëm zedi kooku nag sama umpaañ la maa ngi koy sant di sant tamit ñoom nii naa ñoom ñëpp di sant waa yëmbal uh-huh. boo ma daggul damay continuer rek yéen bëgg ngeen ma nag yéen na yéenee sama xarit na waa univers info nag yéen a wóor de yéen a ma gënal ñeneen ñi nga xam te dañuy ñëw naan la xaaral ni rek c'est-à-dire kon nag maa ngi sant waa yëmbal gépp bàyyiwuma kenn waaye nag damay sant samay umpaañ ñoom Asou xam nga umpaañ Aminta umpaañ Aïda Samb umpaañ Nina ah mais Asou Fall dafa am bés ndax <laughs> Nina da ñëw Nina na ko bébé bu jigéen Asou Fall di nga yóbbu paan di nga yóbbu ay valise ba sonn soo nayee nag Asou doo dem waa xam naa da ngaa taal <laughs> di gërëm ñëpp en tout cas dama doon balaak nii rek mais merci beaucoup di leen sant bu baax mais yéen ñaan nag sama ñaari frères waa univers info ñi nga xam te bi ngeen jàpp ba léegi bàyyante woo leen da ngeen ne def ko maanaam li olof ñaa naan sa koto ñàpp foo jëm ma langaamuloo langaamonte woon ngeen waaw ak amaar nee naa leen kenn du ñoom waa live yéen a ngi nii nag 1300 euh, cas yéen a ngi nii waa univers info ñoo ngi nii toog xale yi ñoo wóor assuré ñaar ñii nee naa leen programme bu ngeen bëgg rek mu wóor te leer ci bopp nit ñi tiim leen ñii ñii ñoo mën ñoo wóor ñoo assuré ñoo ëpp doole ñoo gën a féete xale comme nag Pa Assane mhm. euh, ak Faa Faa ak Amaat mhm. kon nag yàlla na seen jàmm yàgg yàlla bu ngeen gis dara lu ngeen ragal parce que man yéen yéen da ngeen may dooleel parce que su ngeen ma gisee fen di ngeen ma bàyyi ma wax li nekk sama xol te laaj bi du déborder mhm. du ngeen ma laaj dara luy métti sama xol en fait man dama koy seetlu boo gisee boo ma woowee ma sawar ñu ma fay woo bari na te kañ nga mag gëj gis ma def interview keroog bi ma ñëw xadi bi ma ñëwlee feewar bi ma la woowee lu ma man dama am lu ma métti ndax ñii dama leen fee war a fekk dama leen a fonk dama leen a naw su ma déggee da ngeen ma war a defal si interview damay kontaan c'est parce que man la ak yéen te xam naa lu tax man la jël waaw une heure du matin te bi ma leen waxee ah est-ce que di ngeen mën a dem da nga dama non c'est pas grave mm. nangam ak sangam loolu nag dafa see doxal kon nag xamawaatim ñii laa am wasalaam kontaan naa. merci beaucoup merci merci beaucoup abonné leen ci page bi Univers Info TV merci beaucoup Amath. xam nga xam euh, moo bari woon sama bopp bi sant bari Cuus boo compté ma dem ca bari Cuus mënul ñàkk na dugg te ba pare dama leen ko da leen di sponsorisé ci ay dàll. kon nag nee naa leen tubarkalla sama waa ji dama fàtte woon sama mag bu jigéen sama mag bu jigéen dañoo bokk benn deret deret ñu boole muy bari Cuus madame bari. la ñetteel xaritu jëkkëram jeeg bi toog ci toogukaay bi aw ci awukaay bi jeeg bi nga xamante ne bi feetu mbëggeel jotee jëkkëram xam nga lu mu ko ne ko jox naa la kër jox la oto jox la ay place mu ko jox naa la amatuma loo xam ne xalaat naa ko mu la mën a uffi ndax yaa ngi ci oor yaa ngi ci jamaay ne ko yëkkati naa fukki million jox la ko nga def ci lu la neex keroog sama mag ji mu jotee ci dix millions yi man bokk naa ñi ci lekk bari ma madame bari nekk foofu ca Colobane tubarkalla di daan dooleem jëkkëram nopp ko sécuriser ko dooleel ko bari cuus nee naa ko maa ngi lay woon ak ci sama ñaari naataango yi nga sponsorisé leen bari cuus kenn gënu ko ci réew mi dëgg dëgg dëgg dafa neex man mii lu ne laa koy def fu ne ma téye xaalisam di ko tàddal mais bari barke Seydina ma xam ne heure bu ma waxee mu muñal ma yëg nga ne nit nga nga nga nga nga nga téye alalam at ba at dellu te xoolal lu ma neex laa sama mag ji kon aw ma fayam kon bari cuus yal na yàlla guddal sa fan wéral sa cër man ak waa univers info ñu ngi ànd ak yow ci dàll yi ci décembre bi su ma ñëwee dagg ba mu jekk ñu jox xale yi sol waaye moom it mu jox leen ngeen sol sama mag ñaari peeru dàll war na fee feeñ sama ñaari naataango yi jeex na waaw waaw arki Seydina Muhammad rëccu ma ko de ci mën ngeen dugg ku ma bëgg gërëm ngeen may ma ko Karbala dul kat benn ci laaj dul lañ lay def kon waaye univers info merci beaucoup jërëjëf jërëjëf keneen nag fii na doy na nag umu gaaw la maa ngi koy sant bu baax sama yaay ji nga xamante ne kenn du moom foo yant bu mag bi seetkat bu mag bi umu gaaw la woggu mi ci wetu waar xam nga mooy kan mooy bàjjani kumba gaaw la sekk kumba gaaw la sekk tubaarkal la moom mii la duppee la set bi umu gaaw la sekk woggu ci wetu waar olof ñaay nee na koo gën a bëgg ngay fàtte te yow xam nga ne dama la bëgg te dama bëgg nag la set la waa univers info dama bëgg ngeen dem dalalal ma umu gawlu mi ngeen ngeen ngeen ngeen ngeen kiiwal ma ko ngeen jëlal ma ko te bu boobaa du ngeen ko rëccu nag le 7 dama bëgg ngeen siifale ma umu gawlo kumba gawlo sekk moo ko tuddee bésam bi muy le 7 décembre yaa ngi nag dégg dégg nga nee nañ jamono ji kumba gawlo sekk mu ngi def conférence de presse waxoon nañ leen ko kon nag umu gawlo mii seetkat bu mag la ci seetkat ci tubarkalla voyante bu mag bi wóor te ba pare mooy social kat bi seetkat buy def social neenaa ko bu doonee seet bi yaay seen Wally Seck waaye bu doonee social bi yaay seen Youssou Ndour sama waa ji woggu mi ci bétuwaar kenn du moom am jom am ngor bëgg ñëpp di sant nag sama xaat euh, yi di sant xaat mi nga xamante ma mameel la dëkk saali xaat mu baax mi di sant xaat bu Zal Mbaye te barke Dembo Ndiaye moom tam dafa dugg ci laaf jox ñu junni yu bari di sant ñoom nday Moussa di sant ñëpp mu gaaw xam nga ne bu ma la gisee waxal la nag di sant waa palaasu maam nag waa palaasu maam maa ngi leen sant xale yi dañ maa bëgg waaye nee naa leen fi ngeen teg seen leader bi rek foofu la te Oumou Gawlo mi maam maam Ndiaye Savon rek la bëgg maam Ndiaye Savon rek la bëgg barke Seydina Mohamed moo neex a faral samedi dimanche kon nag jërëjëf fayal fayal Oumou Gawlo du doyal de.